ndax damay soog a seen colonel Malick Cissé waaw te mu di sama wëllëre fii mu toog sax aayul waaye ñu may ma tegal ma ko ci kanam ma di ko ñaan waa organisation waaw bismillah waaw gis Cissé tabarakallah jërëjëf dafay daj lu ne ci man yàlla xam na ko sonn sonn bu bëgg a dee waaw moo tax nag kon dafay rafet bu ñëwee fii ñun itam ñu teral ko doonte sax ëpp na lii waaye ba tey junj la rek wa tabarakallah